Voilà. Et... Euh, euh, Charles. Mmh. Voilà. Euh, ce sont des dossiers très importants. Mhm. Mané, man maa parce que dans ma xam nga mbirum kii bi nu mu tuddati. Karim bi Marème Faye bi. waaw waaw ma Karim dossier yi. waaw ah. euh, yi na ci bayi xel. veillé ci mhm. euh, maa ngi ñëw euh, dem te ñëw. Mhm. maa ngi ñëw dem xam naa kon ba suba ak jàmm. mais nanga nga tëj bureau bi sec parce que secrétaire dafa baax. Mhm. parce que ay dossiers ñoo ci ne. dëgg la ok madame merci. merci beaucoup ok madame Mbaye bala ma fay kii dara denc dara dossier yaa ngi nii buur si Karim Wade noonu xaar naa ko denc bu baax fii ko defee mu subaa ñu ñëw rek qui voglio benissimo mi piace tanto eh man tey damaa teel a ñëw foofu la mais El Hadj waa ana dossier ya woy sama nday waaye ah déedéet ay waay est-ce que nekkul fii woy sama nday Eh. Waïo, un dossier yi Bouba ah Allô? Allô? Allô, madame Bay! Euh, maître Lajouf la joue! la là là la là la là là ah, la déedéet daa dee. ñetti suuf lan lan la bokk. dossier ya. dossier yan. dossier bi ba bourgie. waaw anamu. sàcc nañ ko. Ndiané. yow complice nga. dafa laa xoolal déglu ma. xaar ma. bul daw de bul daw. dee la mene. bul daw xaar ma maa ngi ñëw. maa ngi ñëw xaar ma. waaw mene madame Mbaye. madame Mbaye da nga def fol la nga da nga bëgg a def fol lan la ana dossier yi. dossier yi ma lay xool bu ma fontooraa am dossier yi. gisuma ko ma ne ma la may xool dama lay kurbañ de. dama lay ma ma ma déglu ma dama lay kurbañ am dossier yi. mais El Hadj viraate ko. ma lay àndal dossier bi ba. dossier yi moog yi laa boole woon moog yi laa boole woon yi bokk ci. ma lay xool kii ma ne bul ma fontoo. ma xool waa taxaw nii ma ne am dossier yi. ma ne ma ma ma déglu ma yow laa bàyyi dem ci bureau bi déglu ma rek ma ne ma xam naa ko yow laa bàyyi ci bureau bi bul def def lu ko. yaa ngi dégg da nga xam ne ku la ko xam ne ko man ansa may des fii ma la may ma la dool ma wala yow man xoolal dama la xamal ne dàq naa la allez allez allez dàq naa la. mais <laughs> El Hadj day yomb waaw dàq naa la. day yomb waaw ma génn allez dégage. gisuma ko woon qu'est-ce ko woon li kenn mës koo soo dee voleur dañ def ne man dama man <laughs> dama xamul. billaay xam ne bu ko benn yoo fen juuf ma ne sàcc bi dafa xamul les vrais dossiers sont là ma ne dañ ma cambre di sàcc <laughs> madame Mbaye madame Mbaye madame Mbaye wàllu way madame Mbaye